सुरू करेल तिला मी सूर्यशास्त्रभटना तिला येईल दिल्ली शासला فحالة حدث لا حدث وحدث حدث فننت خليني أجل ku bëgg a jokkale nag moo tax ñu wëy fa àq dem bari na moom donte bari na woon xam la ci la gis di liggéey wa daama ka tax bari na ak xara lu weex di liggéey ci axiri ixtiyaar bi ko liggéey wax ko ñu koy waxtaan bu wax koy waxtaan léegi dafa bari lu jub wax ni bari bi dañuy daggul ba wax ni jot di continuer day continuer bari tax dara bi nga xam ne wax nañu sobe si ñun deret jéggal wuñ ca dara sobe si ñun deret jéggal nañu ca lu yées dërëm ba la xam nag bu wari bi saxee na si dërëm ba la ñu continue nag léegi ba waxtu jot mën na continuer bi ñu yeexe julli bi ba julli bi muxtaar boobaa nag ñu ne ci baax waaw ba sàllaate ñu julli ak mboroom ak mboroom ci àggul muxtaar muxtaar mu jeex na léegi ñu ngi bëgg a jeex ñu ngi muxtaar ñu koy bàyyi ñu tàbbata kon mooy wasalla julli aw fiiha wala bori bi dal ko jiit julli nga def julli bi mu mu itam kenn du julli iit la woon ñu xam ne du farata koy jënal bi tam wala saat bi mooy jullee ñëw wagar na sama jokk dawaa dawaamahu taxu bori bi lëxoo ñeel ko fan atam maha mu mott li kon mu mott li jigéen nga tan uñ la muy laab sax ngeen di réer maanaam ngeen di saxal deret bi par xemat ji bi ñu kat ñu jàkk daal léegi fekkante ne dafa commencé jubbi bore bi si kay ko dara yu trop ba dërëmu ko dana jégal nañ ko dana continuer jubbi bi ci lee affaire bi du saxal jàkk bi su dee takkal yi day baax waaye su dee takkal jàkk bi day daal di dox day dox mu ne bu aw ma ah jigéen jigéen ñi kon li xaw ci sa aj bi ngir fegal loram moom su fekkente ne léegi dafa tëgg dara bu bari day sotti ko dana bari ba nga xam ne dañoo néew doole wala bu baax ñun bu dëgg day dund day dund rek aw ma ah jigéen na aw maa waaw xëy na jëndeef na nga xaw bi sa aj yi nga ragal lool aw talaat ko ci kaw bi wala réexu maal yërëm dana làq ko bu tëddee xam nga dund dund mooy lan nan lañ ko defee léegi da ngay dund dafa koo ak si jot yooyu la ñuy dund nan lañ dundee ko xotbam sat la ci faw ci jot bi na mu koy jige mooy gën a suufe ak ñu jige ba xol waaye roxoo bi lu ciy doy ak lu ko ciy doy ba mooy ne jàpp xewal ñu ko ñu tëf yi bañ ko tëf yi ñu bañ ko tëf yi nga tëf yi tawoon yi fekk ni moom ko xare sax fekk yaa ngi taxaw ñu allah ba ko day ñu ñoo xam ne rek jël ci bu fekkee ne da ngaa taxaw nga jiw yëpp yëpp bu fekkee da ngaa toog nga ne kuy jiw toog kuy jiw toog kan nga jiw toog kan nga jiw war a jiw toog kuy jiw toog. su mënul taxaw rek daal di mën a toog war a toog. bu fekkee ne man bu taxawee aajo mën na taxaw wéeru daal bu toog. day yéere taxaw yéere fekkee ne mën na taxaw yéere mu toog bañ a yéere fekkee ne mënul toog bañ a yéere mu toog yéere fekkente ne mënul loolu mu tëddee ak dafa dafa ngay jaar su ko mënul jaaxal su ko mënul fekkee ne mënul tëddee ndey jaar mu tëddee jàngal mënul jaaxal waaw léegi ki nga xam ne mën na taxaw wéeru mënul taxaw bañ a wéeru waaye mën na taxaw wéeru mu bañ a taxaw mu mu mu toog defaru ñu war a wax defaru kooku lu ko war lu ko war waaye wéeru loolu taxaw wéeru moo koy wax su ko wàccee nag dama ne su fekkente ne taxaw mën na taxaw bañ a wéeru xam nga kooku day taxaw te du wéeru su taxawee wéeru nag su taxaw wéeru waaw reer loolu du ngeen xamante loolu rek kay li nga xam ne dafa wéeru doole ba xam loolu wàccee rek mu jaaxaan ba ci biir yàqu fekkente ne nag bu loolu daanoo it yooyu bu baax ak doole bu loolu waddee du daanu waaye nag am na bàkkaar ci li mu mën a taxaw te wéerul dañu taxaw wéerul léegi contre ko ak su jot ci léegi yooyu daf ci wéer léegi day moom ñu ngi ko wax léegi ñu jàng ne loolu wala ñu waaw dañ ci gisee la maanaam léegi day day taxaw xam benn mu ngi aju ci moom na mu mën a taxaw bu fekkee ku mën a taxaw rek lay jafe toog bi moo ko jafe day ji ñaari ci taxaw fekkee ne toog rek la mën mënul taxaw bu di jot day indi rek koo ak ci jot bu ne bu ne koo mënul nii ci jot mënul nii waaye dana ko ci jot dana ko war a wax xanaa day xay war a jot ci kaw bu fekkee mu ngi taxaw mu def nii tànkam bu fekkee ne dafa war a taayoo loolu xam dafa war a toog mu def nii ñu ngi ko koy taay moom Mm-hmm. kooku du itam du dara waaye ba tey kooku lu yaakaar ne nii nii dina ko dikkal dafa am ay mandarga benn mu am jamono yoo xam ne sii bi nii nii daf ci daan dikkal ñu toll ci jamono def kooku yoon mën na ko lool wala mu am jëf yoo xam ne leen su taxawee rek ñu ci biir la su tam dugg waaye bu fekkee dafa toog rek jox rek ne bu taxawee dina ñëw dama ne ay taxaw daal di daal di taxaw daal di islam ci nekk waaw mu ne wa aw maa jingat na li xaw si ak jindi ngir ragal loroom aw sa la fukki koy uyi wala tax ko malaanam laa ji sa diine saa ko yaa moom ñu gën a faxe du feex du tax muy jënd wa in lam yakun na boonte wa in lam yakun wala in lam yakun na wa in lam yakun na doonte jot ñu woon moom mi nga xam ne moom mi nga xam ne day bori dégg nga te ragal ñëpp maanaam heure bi leen yaramam yaramam dana réexu ba nga xam ne bu tee mu bind doonte jot ñu woon itam ne dana réexu waaw tandis que fekkonte ne jàppul ne jottuwul ne mbor yi day bëgg di ko ñu ñu xam mu ne war a taxa te mu seet bu fekkee nga fa seet maanaam muy bëri garab bi yëpp yëpp ndànk ndànk fàttale wu xam nga fàttali mooy raw waaw loolu am na wala fàttale ko ne mu ërëg ko ërëg fàttale ko ne mu ërëg ko léegi mooy mu def ko nii rek jar bañ a bi anaamil israaf si an mu la anaamil mooy moom an mu la an mu la mooy kati kati baaraam la fii nag lii nag lépp la nii lii mooy an mu la bii itam an mu la la ak bii xalaat si man lii nag lépp nag usbuwaar yi nga wala usbuwaar la ñett yëpp la. xam nga dañuy war a ërëg. ërëg toog parce que la ñu ërëg toog. dégg nga. waaw. fàttaliku. waaw mu ngi. bi anam yi ñu xaar ñu ànd lay loxo càmmoñam. te une fois ngeen dolli ko naan daf koy ërëg noonu nag kenn ci xaw a gën a bari. ba ëpp ñu ngi ànd ci ñu ëpp dina mu baax la. yaa la ci jëmu baax la parce que dëgg bi yow ndax booba kenn di di kenn jéggileetul solo si ñu ñu ñëw ne ci ci war a daggee julli bi mu ko am naa taxawee naka bu fekkee ci def ko réew maanaam dafa taxal kon taxal parce que ci biir loxo aw xasee wala mu wala mu ragal dafa taxaw ut malaan ñu leen yëpp aw xasee wala mu ragal te daw yi xam ci biir réexu jàkk yi mu ragal taxal jàkk yi parce que ci biir bu boobaa mu dog julli jàpp parce que dañu jënd jënd deretam bu dee mu koy jokk bu fekkee ne sàrt yi ñu waxoon keroog mën na suñ ko jàngoon ko naan bu fekkee ne affaire bi yàggul jub mu ndox mu jege dem ci ndox mu sori loolu ñu ngi koy waxee ak daan soo xasee wala moo dal sa wasa ma ci biir yàqu jàpp ni illa xasee na am ci yëpp day itam nga xam ni weexu ko fa la ñu nekk da ak xas ëllëg bu fekkee ne yi am na wala ñu ko soxla sax ak ginnaaw jokk bu defee ba tax a ba dégg ko mu ne ko yàqu day génn day du génn moom ak julli bi moo xam imaam la wala maamoom mu bori ba war a génn ba sàkk wu ñoo xam sant ba tax da ko war a génn jàpp bi mu war a génn mun ci ko ant bi pour mu aju téye ci ba kanam nii man bu ñàkk yàqoo yi nan la war a def day def li yàq ci la ngir dina génn ak feex na dina génn li yàq ci la ngir mën a def tey lay def suñu ñu jooy ngeen jéggi ak xale na karim pour ñu joxe jënd yi pour fekkee ne ñu ndaal yëpp ci nga xam ne dañ ko ndaal yëpp pour benn ndànk li tax nga ko ko boo ñëwee doo ko mën a jox rek ñu wax ko boo xam ne xaru ba jege na naan bii jege rek bii jege waaye ak xaraba matal yow parce que jur gi la garab bu gën a jege bii jege boo xam ne moom it waaye na jege nañu waaye bu fekkee ne même bu gën a jege dafa fan trop du ko mën a jox boo doxee ba àgg fa ba toog boo boo ci dox mu waaye sax biir ak fileeg de biir yi sunna ak sunna fekkee wan na gannaaw sunna waaw boobu am na il faut ulama yi ñu taxal am ci ñoo xam ne dàq nañ sax na fekk ñu def ko nag bilaa xam ci biir nga dégg ci xam ne fekkee ne da ngaa wëlbati ci woon seen gannaaw ci ngaan bu ko la mën a jox ko seen liggéey bu fekkee ne yeneen saako bi rek dem ko ñu ko waaye fa ak ci dëgg dëgg mu nañ tan sobe fekk ñu dëgg na sobe itam bu ñëwee bu baraxasaale bu ñëwee du mën a jox waaye sa kanam ak suuf waxuñu ñu ne ko bu waxee rek bu ko tee bëgg mën wala sax wala sax ko sax wax bi dafa jéem wax sañu koy gannaaw wax na rek du ko mën a jóg. loolu kaana def na kon di ci li ma waajal di jamaati ànd ak mbooloo ba tax la fa mu wut na na mu wutal al imaamu ilimaan ji di xëcc gan suñ ko jàngoon ci mais aussi dina istaj yi ñu ci jokk aji yéeg koo xam ne moom dong nga doon julli nekkul imaam nekkul maamoom mu bore génn na raxas garatam matal sàkk yi nga ko nit génn ci ndax moom mën na jox wala moom daal gannaaw kenn dong la du jox ndax te ngëneelal mbooloo la doon dab wala ci moom xilaafa am nañ ci da ngay bëgg ñu jàpp day sural boo xam pour ñu ne dafay bari moo tax ñu jëm fekk njàpp moo yàq ko wala ñu topp wala ñu topp dégg nga ñu toll na waaw dafa jiraay sa xilaafa way daal banaa ñoom jokk na mu waa ji lam ñu attaada du limaane illa bi bi rakkatin lu dul rakka boo xam ne kamala mat na fekkee ne dafa ànd ak limaan ba mu ñu ko mu bari dem wala ànd ak imam bi baraka bi mat mu bon dem ñuy jóg ci kat imam ci biir tur ko xam nga raka nga sa kaw kilefa bi parce que takku kan seen wàll ngeen jot na faraaxa imaanihi ñetti imaanam moom daa tax sëgal ji waaye bu fa jógee bu ñëw dana fekk imaan ji sëmmal ko defee kon foofe mu toll lay mot leen jullee ak seen jullee bu am kanam xam nga jàpp ne waaye su fekkee foofa nekkul fu ñu mën a jullee kat day ñëw mu mën a door mooy wasillaa bu fekkente ne fa mu doon raxasee deretam mënu fa jullee kon fal aqrabu fëgg bërëb ba gën a jege imaam ci moom bërëb boo xam ne moo gën a jege tamu mën caa jullee xam na la ci jullee loolu def wa illa fekkee ne nag amul benn bërëb bu ko jege te nga xam ni moom kat jàpp ndiwul mu fekk ci imaam jàpp ndiwul wa am kana fekkee ne jàpp ndiwul bakarak yàqu mu yàqu mu yàqu ndax
jokk gi même jàkk ni jokk gi moo yàqu wala ak julleem la yàqu mu ne julleem bi mooy yàqu maanaam su fekkee ne moom daal raxas na ba noppi mu bañ a mott bi julleem nga ci bërëb bi ñu ko daan raxasee wala bërëb boo xam ne moo gën a jege moo daal di ñëw rek yëpp ci jàkka yi parce que dafa dox ci lu man pare na julleem yàqu waaye bi àddee lot na um zan na ndem jot na baqaa hoo defi ilimaan ca fa mu doon jullee aw sàkk wala mu ci sàkk ko nga xam ne daal moom raxas na ba noppi jàpp na ni itam bu doxee jullee dana fekk ilimaan mu nekk ci biir julli mu gëm ko wala mu jot ko itam dana dana dellu ci rek ci jàkka bi place bi mu ne kon fu mu fekk ilimaan bu fekkee ilimaan raka bi suñ ko ndax kon day bañ a jokk rek ko dina moom munu dal wala bu ci suuf bi doonte daf teg iliman bi muy taaye itam dana ànd ak moom taaye bi même bu fekkee ne amul woon beneen rakka itam du jógee rek dal di julli julli juma ñu ne nag waaw waxi juma ci li ci juma ndax bu dee julli juma la ndax moom kon itam bu dee julli juma nga xam ne moom dafa war muy mbooloo nga xam ne jot na rakka ak iliman bi ndax moom kon bu jortoo ne dana fa fekk iliman jàpp bu ko fa bu xamee bu ko fa fekk yëpp dafa war a bu bu bu raxasee ci ba noppi dafa war a génn ci moom ci jaanox bi wala ci kuuri jaanox bi su gën a jege wala déet mooy day amul jaanox bi su ngay génne jaanox ba ndax kon bu fekkee ne jullit jumaa la la bon woon dem raxas ko ba noppi dafa war a génn ci moom mut la xam ne bu ñu doon moo xam jot ne dana fekk iliman bi wala jot ñu dana dana fa fekk dafa war a dellu ci rek benn daf muy dellu ci place am ci woon wala muy dellu ci rek ci biir jaamia bi su nga xam ne dafa julli jumaa dana doy xam nga jumaa suuf suuf te loolu julli ci biti bu ñu julli ci biti dañu war a jokkoo ci sàppe yi ñu ngi nga xam ne fii dafa am lor mel na ay naaj yu tànn kenn mënu cee toog mu am ay garab donc daanaka dañu dagat ñu dem te suuf garab yooyu te fële jullee jël waaye fekkee ne léegi tey dafa ñuus nga xam ne amul naaj jàkk bu fees ñu jullee jumaa léegi sàppe yi dañu war a ñuy sës sësalee rek ku fa suñu béréb bi mën koy jullee fekk biir jàkk bi nga fekk mën nga ci nga bàyyi foofu daal di bëree ca àll ba nga di ko toog ndax amul jàkk dafa ñuul nga dem jullee ko parce que am na waaw bari na ñoo xam ne ñoom ñoom waaye du ñoom jumaa nag ñoom ñoom ñoo doon buñ dugg ci bari ñoom jumaa ñu amoon jaan yi ba dafa doon bëgg a def te jaan a baax loolu laa fekkee gis maanaam benn benn fii moo tax julleen te muy àdduna xam benn fii bu ñu la benn ci imaam bi wala ci jumaa ci jaan yi ah batalataa ñàkku moom ci baat dootu mën a sax julli ci baat du mën a julli ci baat te amatul jumaa ñoom ñaar ñoo koy yàq ak jumaa day fay ci baat day la métti ma doon fekkee ne noppi ñëwul rakkaatal rakkaat ci jumaa ci jumaa pour te dara commencé gox ren ci baat jumaa bu fekkee ne bu ngay génn bi nga amee ndànk di génn amaloo rakkaa bu mat da ngay jumaa ndax ngay indi ndax bu fekkente ne raxas nga pare di fekk imaam bi pare te jumaa kenn du ko julli ne yow kenn su ko daal moo tax mu ne fekk yow ci baax bi nga xalaat ñu ànd ak armal wasal la ma ñu sëñ man sarafa tamu soppiku in fa afa dem wasal la ma sëñ ma ne man sarafa tamu soppiku in fa afa dem boori na ba ada filaani imaam yi yi ci gannaaw sëñ bi imaam ba ñu julli ba nekk caay julli bi imaam ne asalaamaaleykum parce que léegi bi imaam bi sëñ yaa ngi def toq toq su la de imaam bi ne asalaamaaleykum yàlla asalaamaaleykum waaye naa xam ne bu gisee léegi saa na ba pare yow nga commencé bor da nga ne naa sëmm te mu day yàq ko wala it ñu du jokk ba xëy na ñu ci lu bëri amul benn yàqu-yàqu buy jokk day yàq ci nit ki mu dem ko dem ko du du du jokkaat ñu ñëw na ci ñàkk a jox mu ne sa sali ne ko jottoom dégg nga ne dafa bëri fa xal ne ko mu génn fa waxar te tey nag ñu woo dàqul bëri dafa génn te suñ benn benn kat gënu leen bu bëgg a dellu ci dootu jox rek. waaw waaw. dama gën a amee koo xam ne natt na ko ay investir lan tag seen bu yàqu salaa mu salaa tëjee julleen nga tëjee tëjee ah rek daal di ko julleen nekk ci sëgale wala laas mi
ndax léegi day bokk na ko rek nga wala aussi foofu la bu leen delloo
gis nga indi nga nag indi nga sax nag ndax li moom ndax mën nañ bàyyi ci jàpp wala ba tey mën naa ko gàttal bu ñu àggee rek ci jëm ci dëkk waaw mu ko wax waaw léegi fii nit ki bu bu bu wëccee rek bu dara delloo itam mën na jot mu julli bu yëgul li nga xam ne mooy yàq koor ci wëcce di dikk ba ci catu ba mu delloo moo koy war naa ko kooku moom mooy yàq kooku mooy yàq waaye bu dee jigéen ci julli ñu ngi def ci ci ñëw ba ci bëtam na dellu bismillah mu léegi sama léegi sama ndam daje na ginnaaw ak jox wax ko daan akuk fay li raay si ñaar aji bari ak raka ko jot na al mustaqim ñaari rakka yu nekk ci digg bi ay istaahuma wala mu jot ci kenn dégg nga xaddama ginnaaw ak xarab ko ba ci kanam léegi dama ñëw parce que imaam bi am na benn rakka bu dee xabar ci gannaawam mu jubbu benn rakka wala ñaar benn dafa jubbu benn dem ba ci ñaareel bi nga bon génn wala dafa jubbuwaat beneen ba defa benn rek nga bëri génn xam kon rakka bi la faatoon bi nga xam ne moom fekk woo ko ak rakka bi nga xam ne da nga bëri ba génn xam nga kon am na fay xadaa mooy bi rafaatoon ba nga xam ne kat dañu naan julli ko ak dinaa mooy julli bi ñu mujj nga xam ne dangaa dikk fekk iliman bi dem ñaar yëpp daal sa baat xaddamal dinaa ba axara xabaar léegi amoon nga ci iliman benn rakka bi ci digg bi wala ñaari fekkee rek benn rakka bi ci digg bi nga nga amoon nga xam ne mooy ñaareel rakka mu taaya jëf nga bol nga jël ci nga xam ne am nga benn rakka da ngay njëkk a fay raka bu njëkk ba woon fatiha mais masalan tamit bu ñu ñëwee dafay jàng ci raka bu njëkk bi fatiha ak wasamaay ci biir bi raka ñaareel fatiha ak lii daal ci masalan wala fatiha ak wasamaay wasaare ko ci ñaar raka ñaareel léegi raka bi nga xam ne iman daf ko jublu ci sa sa nga fa sa nga ñëwee ko moom ngay njëkk a fay mooy soo jógee da ngay jàng fatiha ak wasamaay ci biir mooy dinaa xaddama suñ la contraire bi maanaam rakka yi ñu mujj bi bi nga xam ne fatiha xam nga dafa wax ñaari rakka yi ci digg bi nga am moom nga julli rakka faat la bu njëkk boo xam ne da nga dikk fekk imaam julli ko ak rakka bi nga xam ne ci nga génne nga waaw nga mokk ni maanaam rakka bi ñu jël fatiha rek la benn ci xataa nga mujjee ko fatiha saar nga nga ko ko di ko mais xam dama dina xapa muslim waaw xam nga dina xarab xabaar téere xam nga dafa waxoon ne exactement dam dajana dinaa woon ak ak ak ak jox xabaar ak fay ila ajin wala aji bëri ak raka comme jot na almus seen ñaar raka yi ci dugg mooy kon bu njëkk bee ko faat ak bu mujj bi aw ixdaaw wala kenn ci ñoom ñaar ñaareel bee ko faat wala ñetteel bi yëpp moo bokk atte ñu ngi doon jox ci xëy na xaazul wala aji teew adraka ko jot na saaniyata salaati musaafiri ñaareelu rakkaat aji tukki soo xaw si di xadari. waxoon nañu bëri. ah ma ko laajee rek. ah mën naa ko posé. ah waaw foofu moom dafa ci rëy bi dafa nekk dafa ànd ak imaam bi dafa ànd dafa nekk ci gannaaw imaam léegi xam nga musaafir bi mooy imaam nga doon topp ci moom xam nga musaafir ñuy jiite xaadir ñu ci nekk sibéer nañ ko léegi xaadir bi ñuy jiite musaafir bi ba tey li ci nekk mooy jigéen yëpp jigéen bi waaye benn boo gën a tar moo gën a nekk jigéen mais bi nga xam ne musaafir la moo topp moo topp ci kuy kuy matal ba tax na dañ koy forcé mu matal bu saafir war a wàññi war a julli ñaar raka rek boo du jëlee ba roy ci koo xam ne ci day matal moom moom dañ koy obligé mu matal ndax man ci góor boobu ñu gën a tar ci góor yëpp contraire bi masalan xaadir bi ci roy ci musaafir xam nga xaadir bu roy ci musaafir suñu ko waaye bu imaam bu imaam boobu fi ne mu tax nga bu sëlmalee ci ñaar rakka nga jóg yow mottali ba tey def nga mujj waaye yaa tane ki nga xam ne moom day xaadir ba mu tax dem bu day ci xaadir dëgg la. loolu mu ne bokk ci li ñuy bind ma gis benn musaafir ñu jullee ñaar rakka mu toog. di xaar imaam sëlmal.
dañuy sëlmal mu sëlmal waaw. ndax imaam maamum maamum yëpp imaam bu doon bu nit ragal nga xam ne buur bi beneen beneen sàpp yu gànnaay yi ñoo leen di wattu pour soldaar yi ennemi yi bañ ñoo dal seen kaw kooku moom imaam rek mooy xaar ña ca des waaye dañuy sëlmal dem ñu njëkk a julli ñaar rakkaay dañuy sëlmal dem seen morom ñoom ñu julli woon ñu jëpp yor armée yi fab fab gànnaay yi ñu ngi leen doon garde leen ko ko julli ak imaam ñaar rakkaa imaam matal imaam matal di leen xaar ñu motuñ seen ñaar rakkaa sëlmal léegi xaadir la soo xam ne ci moom fukki ñu bëggul fenn mu dugg sax mu saakir boo xam ne day julli julli na benn rakka day julli ñaari rakka xam nga day toog sëlmal de xaadir la dugg na ko mën waaw ba tey mooy rek léegi léegi man dama war a matal ñeenti rakka mu saakir bi ñoom dafa ñëw dafa war a wàññi mu kabar ba julli benn raka ma ñëw mu taxaw ma ma daal di kabar roo ci gannaaw xëy na xaw ma musaafir la la jël léegi xam nga ñaareelu rakaam bu rekoo ba si jot saa yi sëlmal man li ma am benn raka xam nga am na raka bu ma faat dama ñëwagul moom julli na benn raka ba pare bu ñu sëlmalee ndax ñaar raka la julli day wàññi am na ñeneen ñaari raka ñoo xam daf ma war man dama ko fii mu dajale ci sa zimma sa baax al dina wal xabaar xatama dina la xabaar ba suuf ñëw aw li xaadir wala aji teew ci suul ak raaka comme jot na saa ñu ko salaat mu faajiri ñaareelu raaka jullit aji tukki aw xawfum wala jullit ragal bi xadar yi ci teew te xadama dina wax aw xawfum jullit ragal jullit ragal bari na ay sosiyaat ci la ci la dagane wax ci la dagane jullit day julli ko waaye na fekk ragal ba tar ba tar mais allah ba tey waa jaa lay tëtal waa jaa lay tëtal moom nga def parce que wàllu ci julli kaw allah akbar ci kaw côté julli wala ci kaw gëléem bi léegi pour bu julli ragal julli ragal la waaye ci xadar la julli wàññi julli ragal la waaye julli wàññi julli ragal misaalam naa ko sànq. waaw waaw xam nga ne kon nga ñëw fekk ilimaan bi julli na ak kuréel bi nga ci ñaar raka ba néew ba dem nga dikk xam kon am na la faat nga dikk imaam julli yow ñaar raka matal xam nga dafa yokk xabaar ak dina nga ngay ñaar raka nga julli waaw da nga da nga fekk fii bi dëkk bi raka ñaareel bi waaw ñaar raka ñaareel bi nga fekkee bi nga ñaareel raka ba bu ko amee ñu njëkkoon a kii guddi bi ñoom ñu waaw sëlmal dem ñoo dinañ garde imam lu continue imam te moom dina sëlmal ndax dafa am nga benn raka yow kon am nga ba tey ak dina ko ba raka bi la rawoon da nga bokk ci kuréel ba njëkk a julli waaye rawoon nañ la raka kuréel bi xam nga ñaari kuréel lay doon kuréel bi day ànd ak imam ñaar raka dem kuréel bi ànd ak imam ñaar raka bu dee bu dee morom bi bi benn wàllu kuréel bi moom day amee armée di di tuddee ennemi yi léegi kuréel bu njëkk a julli ci nga bokk waaye raka faat na la jëm ci wàllu maanaam am nañu raka ba ci seen ñaar nga jëlee ñu kàddu waaw xam nga léegi di xadaral la wax loolu da nga teewoo bu fekkente ne am na ci benn raka ànd ak ñoom xam nga su iliman sëlmalee dafa nga raka bu fekkente ne defee faat na la itam ñaar raka yi ñaar raka yi jëkk yi ba léegi nga xam ne ñaar raka yi nga fekkee ñaar raka nga fekkee xam nga dafa kon bu iliman sëlmalee dafa nga ñaar raka yi nga xam ne mooy li la faatoon li la faatoon xaddamam bi naa ak rek ko ba وسبق ان لا يهي القضاء ولم يتم له سيدنا ولم يسل اهل سيدنا علي بن الدناوي ولم يسل الاخير سيدنا الامام وامام سلمان وهما الدناوي فعلى قول ابن القاسم ياتي بنفسه بفاتحه فقط ويتشهد لانها ثانيته ولا كذلك ويتشهد لأنها أخيرة أم إمامه أخيرة إمامه ورقة بفاتحة وسورة ويتشهد ويسلم على قول التحميم ويأتي بركة بفاتحة وسورة ويتشهد ورقتين بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم وجوبا إذا استمع بالأمر قبل هو في سعر رek daanaka da ciy amee la problème yi amee léegi yaa ngi teew di jubbi phase foofu xam nga ku dul imam bi rek da ngay jubbi ñaar raka ànd ak imam mu njëkk ni ñaar raka yu njëkk yi nga xam ne Fatiha ak saar la ngay jubbi ak imam bi kuréel bi ñu jubbi ànd ak imam bi imam bi Fatiha rek lay jàng ñooñu xam nga ñu leen faat ñaar rakka yu njëkk yi muy Fatiha ak saar moo mën a leen faat bu fekkente ne am na ci koo xam ne rakka bu mujj ba rek la fekkee xam nga kon dana am bu fekkente waaw bu fekkente ne dafa am rakka bu mujj bi rek xam nga imam dana sëlmal mu war a taw te fekk am na la ko faatoon bu boole la ko faatoon ba mu ñëwagul ak li nga xam ne andi ko imaam bi ndax ci kuréel bee la bokk kuréel boo xam ne ñoo jël taxaw xam nga loolu moom mooy dinaa bi loolu mooy dinaa bi loolu nga xam ne moom la imaam jigéen ba mu ñëwagul mooy xabaar bi xaddamal dinaa day mokk ni ba noppi fay rakka ba faatu woon te kon bu mokk ni bu muy mokk ni fatiha rek lay doon foofu nag law imam ñu fas yi bon ñu tees waaw ndax ci ñu fas yi waaw wax noonu rek la noonu rek la ndax ci saar yi rek ci dugg dinaa dugg xalaat waaye saar yi ñuy wax dafa ne xam nga ñaar ñu ñi ki nga xam ne nag moom dafa fekk nag dafa dafa teew moom ñu dikk fekk julli ko ragal te day ñaxal de ñeenti rakka la war a julli dégg nga rakka bu njëkk bu fekk na ñu julli ko xam nga foofu moom daf koy fay fekk te julli ñaar ñu julli imam julli ñaar ñu julli imam ndax dafa bokk te ak koy bu njëkk bi yow ba nga xam ne dañoo war a bokk ñu seen bopp xam nga kon li mu waroon a julli imam ci julli ko dinaa la rakka ba mu ko julli woon xabaar la xam dama ji dafa am xabaar day mot ni comme su àndoon ak imaam ba sëlmal ba nga xam ne imaam waroon na sëlmal mu ngi mot ni dalee daf ko faatu est ce que dëgg ñu continué mu ne mu ne suñu fan la ak jara la ci kaw ci kaw kaaba mu ne dara sa jëkkat ni ci aaxira ci imaam ci ñu ñu bi raakay imaam xam nga imaam toogee rek imaam daf lay génn faw nga toog mu mel ne boo dee julli bi ñu jiite la benn raaka da nga toog ñetti jotaay kon rakka boo juddoo da nga toog nga xam ne boo ñëwee kabar sax mu nekk ci ñaareelu rakka moom ñooy ñaareelu rakka imaam dana toog yow benn rakka nga am waaye da nga toog doo taaya waaye da nga da nga da nga toog ñu rek yow imaam yëpp jàng fatiha rek xam nga mooy ñetteel rakkaam bu bu bu sulee taaya day matal da nga toog ni ñu tooyee kooku daa taaya ndax mooy sa ñaareelu rakka ñu sëngal boo duggee da nga jugaale kabar boo dugalee kabar nga fay bala fàtte woon fatiha ak saar sëñ ñetti waaw waaw ñetti sooga am na feneen bu baax bi ñettaay daal ci dem ci doon ci dàq xaw si def ba tey def am na gën wala la sa jëkkat na ci affaire bi daal ci aji nit bi rakkay imam bi wala wala bu tàkkoon ba nekk loolu moom sànni ko di aji ñaare la moom mu roy ko même bu fekkee ne moom benn la wala ñettee la day toog loolu lu tax ko waaw léegi nag kon nag su fekkee am na ay ay laaj waaw léegi ci ñu ci ñu julli ci ñu mujjee ci salat xaw waaw dafa mel ne ki nga xam ne moom jubal ci waaw moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a julli ñaar de waaw ndax nag ñu xaajirin la moom dafa teew ñun nekkul lu taase ko waaw
ñoom bokkoon ci ñi nga xam ne ci xeexkat yi la bokk ah déedéet léegi nag moom boo ko jël moom ay la benn ci wàññi ci jamono yi waaw
xëy na njëkk moom ñu daal ci ci di dox wala ñu wax ay yoon moom léegi da nga xam ne ñu ngaa yi si dem Dakar ndax wàññi moom ba tey ndax wàññi firnde la ay dugub ci benn dugub coono bi maanaam ci wàllu dugub ci wàllu jóge ci fi nga dëkk dem ci sori rek moo waral wax ji daal ci solo bu def ko raxam def boo sonnee boo sonnee bu fekkoon ne sàcc nañ ci ne bu coono bi mu xam ne indi ci daal bi machine wala lu mel noonu la waaye kenn wax ko ci dañuy rek boo doxee lu mat loolu wàññi firnde la xam nga nag dama am na ñoo wax ndax xaal yi léeg-léeg sallallahu alayhi wa sallam dañ gis dara ku nekk am nañ ko te nañ ko interprété meneen tey tax ci bi nga wax ci aj maanaam am nujur bi ab taxa wàcc ci sallallahu alayhi wa sallam daf ko defoon pour Abdullah ibn Omar ak Abu Hurayra sunna la pour Ibn Abbas ak Sayyidina Aïcha radiyallahu anhu jami'i ittifaq la dafa waroon a wàcc rek da ngeen te mu ngi toll foofu rek wàcc fa comme masalan wër kaaba bi ñett yoon njëkk yi lay yi lay daw pour ñu bari ci saxaaba yi fumme la pour ñeneen nit ñi fumme feebar bi nga xam ne moo leen daan dal Madina moo leen daloon bi ñu jógee comme noonu ñu dañu jógee dem Màkka dem changé jaw dem Madina benn feebar boo xam ne ñu mën a di war di wax njàkko bi di leen dal ba ñu waa Màkka di wax ne gaa ngi gaa ngi daw de bañ jëm baaxut ñoom ñu ngi feebar dañu bëri gisee amuñu yaram amuñu kàttan ko xeexal ñoom dina leen pour nag yonent boon leen ne naam na kàttan mu ne bu ñu accès yoon njëkk yi dañu di daw mel ni ku sawar na moom pour nag Abdoulaye ibn Abbas ak ñi ànd ak moom du fum na lool rek yonent bi jigéen comme yonent bi benn aj la aj defaatul benn yoon bu bañ koo santaane wala bu santaane ko ñu gisee ko ne loolu dama ne jigéen loolu passé na du sunna ñu dana gisu ko ne daf koo def ci sunna ko lu may nag masalan bu ñuy armal jël falay fa bu ñu jugee benn rakk def tahliil bu ñu jugee ba wàcc koo beneen bi def tahliil bu ñu mujjee ba tëdd bu ñu def tahliil comme ñu ñu dañ doon ñëw noonu ak saalan ak saalan ànd ak doon benn yoon ñu ñu fekkee bu ñuy def tahliil ci julli bi ñu daal di ne foofu la ñu war a def tahliil bu fekkee bu ñu yéegee ci gënal bi ba commencé wàcc war a dem foofu la ñu dégg mu def tax nit ñi ne foofu la ñu war a ñi nga xam ne dañ koo def carte fa la ko defee foofu loolu lañ fekkee ñëwee noonu la demee ñeneen gis ñu bari ñu ngi koy interprété dana indi changement naka lañ koy léegi benn néew ñu am yor benn néew ñu ñu jóg taxaw ba néew bi passé ñu wute ci saxaaba yi ñu wute ci ñu ne maanaam bi xëy na léegi maanaam dee da nga xam ne xaxaru min xaxaru jaay min jumbi ay nga noonu mu fooree ni ñu koy yëgee mooy waral nga jug taxaw ñu ñu noonu lañ ko gisee ñeneen ñu ne lim malaayika bi maanaam ko yàlla lim malaayika bi ba benn bis si dina xasan radiallahu anhu ne yonent bi daal benn bis sallallahu alayhi wa sallam dañu yenu benn yoro bu jigéen bu dee bi ñu bëgg a àgsi mu sut ñu tiimale ko boppam même bu fekkee ne tiimi ko ni waaye waaye gën na koy bopp ñu jóg taxaw xam nga kon moom léegi bu ngeen ñëwee bu ngeen ñëwee bu ngeen yëgoon bu mu doon rek bu fekkee ne bu fekkee ne ci li ci na asan wax bu dee jullit kon mën nga bañ a taxaw bu dee ñëwee bu la jegee ngay mën a taxaw bu la soree ba gisuloo ko wala bu sore la lool mën nga bañ a taxaw bu dee ci wax yi ne ne ci xamul léegi moom muy jullit muy yéefal muy li mu mën a doon rek war nga gis ko ñi nga xam ne itam dañu ne gis malaayika bi bu dee jullit dañuy jóg jóg ñu day ñu day bari ndax ñoom comme ni ko waxee woon rek day am léeg-léeg xew-xew bu xew yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte ko ñu fekk ko ñu ko fekk moo tax bu dara daan xew dañuy laaj comme noonu Seydina Omar Seydina Abu Bakar ci miraas bi nga xam ne benn ay bu ñu koy laaj donoom maam lu mën nga gis ma dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte doon la maam mu ne ana kan moo ñu ci dégg yonent wax rek ci affaire maam ci donoom bu ko waxee jóg ci ci lu mu kan xel de su dee kàbb mu wàcc mu ne ko fekk naa mu benn la ko jox ko ci jëf mu ne ndax am na keneen ku ko ku ko fekk ku ku ku yëg loolu am keneen ku ko waxaat mu daal di ko léeg-léeg nit ki wax leen ñun kenn duñ ko gëm comme si dina amar ko ko fàtt na ko bind xay waxee ne fekk nañ moom ñëpp ci ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam askee ni pour man ñu dund ñu dëkkuwaay Ibn Umar na man daal dama xamoon ci téere yàlla bi ma ko bàyyi nga wax benn jigéen rek boo xam ne xam wax ne da dafa waxul dëgg ñu daal di atte noonu Ammar ibn Yasir bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa amee say ay xamul ndox mu sangoo suuf si yaram yëpp ñett li ko yàlla mu ne mu ne boo tiitoon rek dañu day mu doon waaw bu ko waxee Ibn Umar d'accord dina ñëw ko ba nga xam ndax dañu ne ñu ngi ko jàppale ba taxaw ngeen ñëwee ci biir rafetee ci suñu yi. waaw ñu ngi koy def ñu dem ci réunion. ñu ngi ko jëfandikoo. déedéet foofu da nga ci yéene suñu ndax sunna nag maanaam raxas bi ñetti yoon raxas bi ñetti yoon galax li ko ñetti yoon sarax li ko ñetti yoon suubi ñetti yoon sunna yi jeex li mu delloo masa bu pare ko ci def ndax foofu dafa ànd ak masa bi foofu nag nga yéene nag nga nga ci nag ma yaakaar ne foofu saas la jëm diggante sunna yi ak kanam xale yi ñu dàmbale sunna yi moom waaw waaye ñu ngi ci lan lañ nekk boo di yéene benn da ngay yéene farata wala nga yéene sunna bu fekkee ne yéene nga farata te li ngay def sunna la yéene nga dara kon bu fekkee ne da ngay yéene man la tey nga yéene farata ji te fekk da ngay raxas say loxo yooyu bu fekkente ne da ngaa ciy génne sunna farata nga bu fekkee ne da ngay da nga koy yéene foofu faaw nga génne ci sunna yi ngay def yéene def farata xam nga njàpp yi te foofu mu ngi te njàpp ñu commencé ci ci kanam bi te kon da nga teqale yéene bi ak jëf bi bu fekkente ne sorewul trop mën naa dox waaye bu soree day yàq waaw lu ma jël maanaam dañuy doxal gën a mu teg sa lañ gën a bu yaa am taxaw loxo rek moom ñëwee na jàppale waaw nga xam ne diggante bu ñu xoolee diggante bi ngay raxas loxo bu ne ñett yoon waaw ak bi ñu jël mooy sa kii ba waaw waaw.
foofu ñu jël bu gàtt la dana dana dana baax wante faat na ko yéene sunna waaw yéene sunna su waroon yéene bi ñuy raxas fii raxas fii ndax ak fii ak fii ba nga xam ne kanam boo ci def bu soobee yéene farata sunna soosu yéene ko maanaam fii la ñuy tey bu fekkoon léegi moom bi ñu tàmbalee waaw yéene na léegi dama doon lépp tëndoo ndax loolu moom tam ñu jël na tey ndax rek la mën a wéy farata xam nga lu waxoon ci bitti ni mu ko baatale woon parce que dara nañ lu mu tere waaw wala jëf bi